doo leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz Sen TV ñu daal di àddu wax ci coowal Mame Mbaye ak Ousmane Sonko ba léegi gannaaw ba juge ba àtte ba daal di teg ay daan leader Pastef bi lee mu di ñaari weeri kaso yoo xamante ne ñi rek du ko tëdd maanaam sursis ak ñaari téeméeri million yoo xamante ne ñi rek war na ko versé kële di Mame Mbaye Niang ñaari téeméeri millions yooyee moo jur coow tax ñenn ci nit ñi di daal ci kaw kële di Mame Mbaye Niang ndaxte rek dafa def ay révélation nee na ñaari téeméeri millions yooyee bu ko jotee maanaam du ko séddale du ko jox ay njege Sénégal yi maanaam ay famem ay mbokkam ay sëtam da koy jël rek daal di koy séddale ndongo daara yi loolee mu wax nag mu jur coow tax ñenn ci seen daara yi di dal ci xaalis boobu Mame Mbaye Niang dañoo yëpp dafa jàpp ni xaalis boobu lewul tax mu bëgg koo jël di ko jox ndongo daara yi loolee nag di Cheikh Bara Ndiaye borom def gis nekk ku ñu ràññee lool ci Sénégal daal di nay addu ci li ni mel bay dalaale ci kaw ki nga xamante ne ñi rek moo di Mame Mbaye Niang nee na boobu lépp xaalis sax ndongo daara yi dañu ko dal di seexlu lu tax jëlu ko di ko jox moom ay mbokkam tax mu ne di koy jël jël di ko jox ñi nga xamante ne nii rek moo di ndongo daara yi mu mel ni rek loolee métti na trop ñi nga xamante ne nii ñoo di sëriñ daara yi tax yu dal ci kaw kële di mambay ña wax bi nga xamante ne nii rek daal dina koy wax ndaxte rek dem na sax ba sëriñ daara yi ne loolee mun nañu sax plainte kële mambay ña ndax loolee mu wax rek nekkul benn yoon yoon day jël xaalis bi rek di ko séddale ndongo daara yi lu tax moom xaalis bi nga xamante ne nii rek mu ngi koy fayeeku bu di salaire am jëlu ko di ko séddale ñi nga xamante ne nii rek moo di ndongo daara ndax ndaxte dafa jàpp ne xaalis boobu moo lew moo tax du ko jël di ko séddale ndongo daara yi tax ñaari téeméeri millions yi mu bëgg koo jël di ko séddale ndongo daara yi tax ñuy dal ci kawam bu baax a baax Mame Mbaye Niang wax joojee nga xamante ne ñi rek wax na ko métti na trop ñi nga xamante ne ñi rek ñoo di sëriñu daara yi maanaam ñaari téeméeri millions yooyee nee na du ko séddale ay njege njaalim di koy jël daal di koy jox ndongo daara yi mu mel ni rek xaalis bu setul la tax sëriñu daara yi di dal ci kaw ki nga xamante ne ñi rek moo di Mame Mbaye Niang maanaam sëriñu daara yi nee nañu seexlu nañu xaalis boobee duñu ko jël